ndaxte force occulte yooyu mu waxoon 2021 booba ba 2023 gisaguñu mu indi ci benn firnde moom en tant que le patron de la polis nationale waroon def des enquêtes sérieuses pour mën a leeral sénégalais yi ci wàllu force occulte yooyu mu waxoon booba léegi dañ ci gisul dara au contraire ñu gis ni sémiologie bi dafa évoluer 2022 mu wooye leen ay forces spéciales am ay opposants yu ñu dañoo nekk en connivence avec ces forces spéciales ñu ñu tëj kaso ñu ñu rey leen ñu dem ba gis ces forces occultes là dem à Matam yor ay gourdin di dóor la population ñu gis leen manifestation yu opposition bi di def Dakar ñu gis ay ay civil yu arrêté nit ñi ci biir manifestation yi terminologie bi avancé mun nañu ce sont des policiers en civil yuy war a protéger population yi ñu gis ci manifestation 2023 yi passé ñu am ay vidéo yu ñu wone ay personne armées di daw ci autoroute bi mënuñu c'est des rebelles du MF du bu plus récemment mu delluwaat ci terminologie force occulte muy wane irresponsabilité bi nga xam ni ministre de la de l'intérieur une position aussi stratégique daf ko am sur cette question ki interpelle la sécurité de tous les Sénégalais, qui interpelle la sécurité intérieure de notre pays. Comment tu peux comprendre un ministre manipule ces termes la depuis ñaari at ñaari at ak genn wàll te ba léegi mënu ci indi benn firnde bu leer pour rassurer les Sénégalais que force occulte yi force spéciale yi ñoom ñëpp am na lu mu ciy jàpp pour mën a wax ni les Sénégalais sont pour dormir dans la quiétude les Sénégalais sont en sécurité au contraire liñ ci gis mooy ci manifestation yu mujj yi ay nervi APR de manière flagrante ñuy opérer aux côté des forces de l'ordre loolu nag ay vidéo amateur ay vidéo sénégalais lambda moom moo ko génne mu nekk lu mu nekk lu am solo li may wax ndax quand le ministre de l'intérieur muy politique ñu xamee ko ci wax safaanu dëgg bu doon moom daa assumer dem devant le peuple sénégalais def une publication mensongère à partir de ce moment dinañ ni ma ni c'est le ministre de la République qui fait une publication mensongère tàmm nañ ko wante quand il utilise une institution aussi prestigieuse que notre police nationale pour lui faire porter ses contre-vérités c'est grave et on lui demande mu jox du respect mu bañ a décrédibiliser une institution aussi importante que notre que notre police nationale